dañu daje dajale conseil municipal bi euh, pour waxtaan ci affaire suufu Ndingler bokk ci benn xalaat ba bu ñu fa jógee ñuy xàccendoo di dóorandoo comme niñ ko waxee bi nu waxtaanee lañu jàpp mooy. conseil municipal bu Njagañaw mi ngi jog, and ak population ndengler ngir xex ak ñom pour sen intérêt manam sen ak ak yelef ci mbir mi waye xex bobu ñu def ko jaarale ko ci yoon mais aussi nous fexe ba jàmm dox ci diggante bi conseil municipal la nga xamné mom da koy ñaan té doonul ñaan sax mais dafa né loolu lu war am la té dañ ci wara taxaw tembe moy nañu fexé ba mandargal fa nga xamné moy commune Sindia ak Njagañaaw fa ñu dajé ci bañ ci noppé sax nañu manargal ñun suñu frontière ak yeneen commune benen bi conseil municipal mi ngi ñaan nguur gi mu jël mbir mi ci loxom te fexé ba safara ko ba nga xam mbirum sédiment ak ndengaler kenn dootu ko waxati liñu sakku tam moy Babacar Ngom ci yermandem ngir yalla mu tool yi nga xamne mo nek ci euh, wa Ndegaleer doon ko béy te mo nek euh, ci ci ci mu delo len nous on on on a on a braqué nos projecteurs dans l'avenir depuis 2012 on parle de cette affaire nous voilà ce qu'on a retenu aujourd'hui euh, donc parce que euh, on, estime que euh, ça, même si c'était fait, il peut le refaire.